dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xam naa ñu ni démb mooy bëccëg bi nga xam ne moom lañ jagle loon jëmbatum garab njiitu réew di président Macky Sall cérémonie bi nga xam ne maanaam moom la ñu si doon amal sa jam ñaajo moo ko teye woon moo ko jiite woon daana fay jëmbat ak guy wax na njariñ li nga xam ne maanaam jëmbat garab daan na koy am te woon si askanu Sénégal gi yëpp maanaam ñu nekk ci lu jëm ci njëmbatum garab moom njiitu réew mi li mu bëgg mooy Sénégal goo xam ne dafay naat wax na njariñ li nga xam ne àll bi am na ko daan nay wax tamit daal di protéger aar li nga xam ne maanaam mooy garab yi yéen kaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal la ñu niki démb sa ndaje ma njiitu réew mi di président Macky Sall daan na fay jëmbat ak garab waaye nag ba mu koy jëmbat jox na exemple jox na leçon ki nga xam ne mooy Abdou Karim Sall mi jiite wàllum environnement ndax moom njiitu réew mi ba muy jëmbat garab ga dafa sukk si suufa maanaam sukk ñaari tànk yëpp nekk ci suuf si di jëmbat garab gi te Abdou Karim Sall niki daaw moom ak basangam la laloon ba mu jekk sol ay dàllam taxaw ci kaw bañ laal suuf si yéen kaay gi di waa place mu xëy di ñu xamal naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall teg na ay plan ngir nag Sénégal gi yëpp daal di naat foo xool mu wert ndax moom jàpp na ne wàllum garab bokk na ci loo xam ne day jëmmal wàllum wérgu yaram exclusif bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat ci déndu Afrique ki nga xam ne mooy Alassane Dramane Ouattara ak Alpha Condé ñooñu nag bu doon ab virus la maanaam ñu ne test nañ leen ba ñu positif te nag président Macky Sall moom jamono ji maanaam cas suspect la wala sax ñu ne ma ci salle d'attente bi maanaam am ñu déggee président Macky Sall wax ne dafay sampan ndëndëm du leen bett yéen kay gii de las mu xëy di ñu xamal naan ñu defante ba ma ngi ci AFP ndax ki nga xam ne mooy Aliou Sarr ministre bi ñu dénk wàllum commerce ak Mbaye Dione maire bu Ngoundiane ñoo ngi gita ngaas ñoo ngi xëccoo li nga xam ne nag mooy bopp AFP yéen kay gii de mu xëy di ñu xamal naan ñu kéwal yi nga xamante ni coow li bëri woon na lool ginnaaw bi ko Abdou Karim Sall doon jëlee ba am yu safaatu ba léegi nii ñu bari jàppoon nañ ngi denc kéwél yi ko moom loole nag metti na lool docteur Cheikh Dieng nee na Abdou Karim Sall mi maanaam Macky Sall ci boppam lay defanteel yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy ci coronavirus bi mbaadu nag dafa waaj a ëppi loxo ndax cas communautaire yi ma ngi jàba jonge lool ci réew mi Assane Samb xëy jël xalimaam ne cas communautaire yi li ko yokk bokk na si ñi nga xam ne seeni kër lañ leen di fajee ndax Sénégal ak ni mu bindoo ak ni muy doxee ku am coronavirus ñu ne la dañu lay ber ci ak kër loolee du yomb beneen bi képp koo xam ne jege yaan tonga ak ku am coronavirus maanaam nag boo boo wanewul ay signe kenn du la testé te loolee ci boppam mën na ko yokk ndax askan wi bëri na ñoo xam ne bu ñu amee coronavirus du feeñ si ñoom waaye nag dañuy wéy di ko wàllaate yéen a kaay gii di Le Quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu ginnaaw ñaari fan yi nga xam ne Aly Ngouille Ndiaye yëkkati na ay kàddu tere lépp loo xam ne jëm na ci wàllum rassemblement dafa mel ni ndaw ñu dégguñu ko ndax nag ci wetu tefes gi maanaam ci plage bi Guédiawaye ba Cambérène dafa fees dell ak i ndaw kaay gii di 24 heures mu ñu xamal lan lu toll ci 72 heures maanaam ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñett ci ay nit amee nañu ji am lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay nit yoo xamante ni ame nañu ko te xamuñu kan moo leen ko wàll maanaam ay cas communautaire am na lu toll si juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay cas grave yéen a kaay gii di la turbine ak laas mu xëy di ñu xamal lan ñu jàngoro ji daal ginnaaw tabaski gi ñu bari la nga xam ne njortoon nañ ko moo am ndax nee nañu déplacement bi nga xam ne askan wu bari def nañ ko si tabaski gi lenn kese la mën a jur maanaam mooy gën a lawal jàngoro ji te loole la ñu gisa mari taw ñaan ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien nee na jàngoro ji bu ñu bañee mu gën a law maanaam nañu annuler màggalug Touba gi ak gàmmu gi su ko defee kilifa yi dem waxtaan ak kilifa diine yi yéen i kaay gi du source mu mel ni kàddu yooyu nga xam ne Mary Teuw Niane yëkkati na ko neexul benn yoon Cheikh Abdou Lahad Mbacké fan ma ministre conseiller bi nga xam ne moo yor communication màggalu Touba daat nay wax ne xalif général des Mourides xaarul ci kenn ay ordre ngir naka doxal ci lu jëm ci mbirum màggalu Touba gi maanaam bu ñu demee ba àgg sa la nga xam ne moom la xalifa bi di def maanaam moom xam na ko te du kenn moo ko koy wax ana ñiy wax nañu mu màggal gi ak waxi coronavirus ba sëriñ bi joxe deux cent millions maanaam fan la nekkoon yéen gii di Vox li mu xëy di ñu xamal lan ñu église bi ñoom daat nañuy wax ne fête bi nga xam ne moom la ñu dëgmal fukki fan ak juróoma ci weeru août bu ko kenn def ndax église bi nee nañu maanaam bëgguñoo lor kenn enquête yéen a kaay mu xëy di ñu xamal lan ñu préfet bu Ndakaaru ginnaaw bi mu tëjee baar yi ak li nga xam ne mooy salle de sport yi loole nag naq na lool ñi nga xam ne ñooy artistes yi yéen gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Abdou Karim Ndene Sall mi nga xam ne mooy directeur général bu train express régional daat nay wax ne bu matukaay yëpp yembee maanaam train bi dina daal di dox waaye nag danañu xaar ay experts internationaux yoo xam ne ñooy joxe autorisation bi yéen a gi di Libération xëy na nag ci xale bu jigéen bi nga xam ne dafa amee woon coronavirus maanaam nekk hôtel Novotel ki nga xam ne mooy médecin consultant bi nga xam ne moo koy xool maanaam fekk ko fa violé ko caxt caxtee ko mbir ma na mu demee lépp xale bu jigéen bi nettali na ko nee na médecin consultant bi dafa dugg fekk ko ci biir néeg bi tëj néeg bi maanaam di ko raay ak di ko kolaas ca noonee ci la ko songi simmi nag ay yéreem daal di aj ab robam def ko li mu koy def xale bu jigéen bi nee na médecin bi pénétré na ko yéen i gi di sunu làmb xëy ñu xamal laan ñu àdduna moo gudd tànk ndax bëri na ci mbër yi ñoo xam ne jamono ji ay xarit lañ te bu njëkk ay noon lañ woon ci làmb ji ku ci mel ni Balla Gaye 2 ak Baboye Eumeu Sène ak Gris Bordeaux Modou Lô ak Papa Sow yéen i kaay gi dee saat mu xëy di ñu xamal laan ñu FC Barcelone éliminé na Naples bu Kalidou Koulibaly Bayern éliminé na Chelsea quart de finale bi kon Barcelone ak Bayern la yéen i gi nee na Cheikh Kouyaté ma ngi ci ay négociation ak club bii bëgg nañ Diao Baldé Keita Paris Saint-Germain bëgg Kalidou Koulibaly